La la! teew ñëpp ak ñu teewul mu fas yéene yëkkati rek xam kàddu yu néew baax ci suñu mbooloo moomu su ko bi noonu ko àndee ak section yi noonu ko àndee itam ak kuréel yi nekk ci dëkk bi yëpp kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax dina dal gànn fii su ko defee dañ leen di sant bu baax ci ànd bi nga xam ne ziyaare ji xalifa bu tedd sëñ Sidi Moxtaar yàlla fi yàgg téwéer waaye malgré coono yi lépp terewul ñu yenduwaat fii ndax bis yi nga xam ci wàllal murid na rek doy na sëkk muy buntu kër yi nga xam ne ñoo seq kër yi bu ñu tëddee ku mel ne islaamu daara yi nga xam ne ñoom ak ñun ak ñoom liggéey yi dañ ko tàmm dañ ko ànd ci biir activité dañu mën a yóbbaale ci des ñoom tey ñu leen sant bu baax a baax a baax leen gërëm ci seen taxawaay yooyu ak seen taxawaay yooyu di sant bu baax yi tey kër gi ci jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ñoom ñooy itam bu ñuy tuddee ku mel ne suñu chaax mat na dana doy sëkk ndax bis nañ ko tàmbal léegi amul benn at moo xam ne loolu dana tugal loxoom te loolu saa su nekk dañ ci gën a am dëkk ci gën a gën a am fierté sa sa su koy su koy def kon moom itam ñu koy sant bu baax di ko gërëm mu yóbbaale mboolem kilifa yi nga xam ne jàpp na ci bis bi su ko defee bu ñuy ñàkk di sant itam ku gën a sëñ Bachir Mbacké Abdou Khadr ndax moom itam depuis ñu tàmbalee bis bi ba léegi amul benn at moo xam ne loolu loxoom la ci dugg di sant ak gërëm ku mel ne sëñ Cheikh Mariam moom itam wax dëgg yàlla bis bi saa su nekk ñu koy àndal ñun di ci dugal loxoom waaye di ci joxe ay xalaatam ak i proposition ñu ñoo ñàkk sant ak gërëm itam ku mel ne sëñ Abdoul Ahad Ka muy maire Touba moom itam wax dëgg yàlla bés bi yàgg na ko àndal ak ñun di ci dugal loxoom bu baax a baax a baax moom itam ñu koy sant bu baax di ko gërëm di sant bu baax ku mel ne sëñ Mbacke Sakho la soxna moomu Jalle di sant bu baax itam ku mel ne soxna Baye moom soxna May mun a ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu tàmbalee bis ba léegi amul at moo xam ne loolu dana ci dugal seen loxo di sant bu baax itam ku mel ne Serigne Gàddi Sall di kenn ci membre yi bureau fédération bi di secrétaire général adjoint moom tudduñu ko sax ngir bokk ngir bokk fédération waaye ci ak mbaaxam ak yaatoom at mu nekk dina participer bu baax a baax a baax ci bis bi ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm. di sant ku mel ne Khalifa Sall maire de Dakar waaye tam di sant Cheikh Anta DG bopp nu bu Dakar ak mboolem ñi nga xam ne yàgg nañoo ànd nañu bis yi ñi ngi sant aussi bu baax wilaya yi yëpp nag bàyyiwuñu kenn section yi fi teew yëpp taal bi yëkkati ko ba buñ ko mënta yóbbu fa mu ko bëggee wuñ tam yóbbu fu ko jege loolu bu jàpp na ni loolu sëñ bi ñu nga koy seetal mbooloo bi te doo ko ñaan di taxawlu foofu di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ci des incha allah mbokk yi ñu ko mottali asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Deus é vivo. A terra é uma vida de Deus, e não a terra é vivo. Direi que é que bis bu rek yi nga xam ne sunu bopp yi taxawal nañ ko muy bis boo xam ne jagleel sunu borom la gum leen jagleel ndax ñaan baax na lool bare ñaanal seeni waajur la ñu def yam ca kon ñoom su yàlla doolee ñu xalaat ne war nañoo tàgg mu bés boo xam ne dañuy fàttaliku mbooleem jullit bu fi mas a ko ba adduna soso ba ñu jagleel leen ay ñaan ñaan yooyu yaakaar naa ne ñëpp war nañ ko bàyyi xel te kenn ku nekk itam war na jaakaar kon ñun ñoo am ak cant buñ leen di sant ci boole bi nga xam ne boole nañ ñu ko ci liggéey bu tari bii xam nañ ne Cheikh Xadim radiyallahu anhu waxoon na ne ñi nekk ci benn suuf boo ci ne woon pëkk pëkk tey ne ko loo gën a bëgg daf naa la delloo àdduna ba mën a liggéey jëf jëf ju baax ak lu mu tuuti tuuti tuuti yoo xam ne bu ëllëgee bu ma dem dana ma jaay wa arabul ila dunya maa walaw suyaatan faqat li yaamalu saalihatan tanfaahum in gafaru ku demagul ku ne nag ni Serigne Ahmadou wax léegi te jàpp nga ne sa yóbbalu doyul te ña fa nekk soxla nañ ay mandat yu ngeen war a mandat te yow la nga leen di mandat dañ tey jot te du wàññi ci sa wàllu dara war ngaa góorgóorlu bu baax ci yónnee ña fa nekk ay mandat yu ngeen di jariñ ku ne ña kenn ku fa ñàkk dara ñi seen i ndey fa ñi seeni i baay nga fa ñi seen i doom nga fa ñi seen i fa kenn ku ne am nga ku la fa nekkal te kenn ku nekk ka la fa nekkal soxla na ñaan kon nag lii ku yàlla def mu tabbi ci xolam tabbi ci xelam tabbi ci ay xalaatam mu jóg a jëmmal loola jàpp naa ne kenn warut taxaw di seetaan ñëpp dañoo war a ànd ak ñoom ci liggéey bu tedd bi kon nag jërë ngeen jëf yàlla na yàlla lépp tegal leen ko ci loxo Sëriñ Tuubaa mi xam ne lépp lu dugg ci loxoom yàq ko deex na def daal na ko yàlla def ci loxo Sëriñ Tuubaa mu seddal leen leen ko ci jullit ba njëkk génn àdduna mu bii mujj génn àdduna te yàlla nangul leen defal leen itam tiyaafa ju kawe seen jox te kawe seen jox te ñun ñëpp ñu ànd teewaat ba leneen déwén kenn bañ a ñu leen di xamal ne nag liggéey bi fas nañu yéene fii ñëw bi dund te leen di ko amal ñu ko ànd ak yéen ci njàng mi ak ci liggéey bi ak ci yëngut yi nga xam ne moo koy soxal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf kàddu yi gàtt na waaye làmb na lu bari ci koo xam ne borom dégg nga euh, ñu di xamal ne. leen waroon na wax waxoon nañu ko démb te loolu moo doon rek lii ñuy def ñu teg ko ci loxoom mu tegal ko ci loxoom Sëñ Tuubaa ndax dañoo jàpp ni Sëñ Tuubaa mooy jëm li ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp lu ñuy def te jëm ci jullit yi buñ ko tegee ci loxoom Sëñ Tuubaa jullit bu ne dana ci am lan ci war a am lii rek moo tax ñu def tey nag li ñuy wax lenn rek mooy am am xëy bu ñëw ko. ngont ma daa war a teel am xëy bu neexu ngont ma daa a teel te ay màgg baax daa bari ci suñ biir juddu baaxu yomb ay màgg baaxu ñoo fi bari te jumtukaay yi ñu joxoon mu ngi màggal te jàttam ki waaye soo te fanaan du am te sas yu motagul moo tax ñu bëgg a wut aw lay lay lépp nag mooy bëgg ku ñu ñaanal ak jéggal ak yërmande yàlla ci biir suuf loolu rek mooy jégalu soxla woon daal ngërëmal yàlla rek lañ bëgg bu ñu amee ngërëmal yàlla am lépp lépp fi àdduna lu nit di wut rek nañ ci biir ngërëmal suñu borom loolu rek lañ bëgg ngeen jot ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. na ko ndax moom daa jàpp ne bis bi ñun ñu koy def moom lañ koy def ndax moom la war loolu la jàpp Serigne Abdoul Khadir Mbacke moom Serigne Ibrahima Mbacke ak surtout moom Serigne Moussa Kéré di leen xamal ne liñ fi jàng ci kaamil ci bi ñu waxee bis bi nit ñu yóbbu ko ba léegi toll na ci juróom-ñaari junni kaamil ak fukki kaamil ak juróom-ñeent jàng nañ fi ci xasida juróom-ñeent fukk junni ak benn ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett askar yi muy mboolem xeeti sikkar bu waaye def rek dañ koo boole toll na ci fanweeri million benn ak téeméeri junni ak fanweer ak juróom-benn ak juróom-benn téeméeri juróom-benn fukk ak juróom-benn xam nga ne ni ñuy ñaanal li ñu fi jógee noonu lañ xam ne ñenn ci hôpital yi dañ leen a war a taxaw ndax dañu soxla deret tey ñi fi may deret toll nañ ci ak juróom-ñaar yoo xam ne may nañ deret ndax booy taxaw ku fi jógee war ngaa taxawu ko tëdd ca loolu hôpital te laaj ko ko déglu kon du ñu guddal dañuy jox kàddu gi sëñ Amadou Ndiaye Guèye moom it mu ñëw.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 ñu yóbba gën a rafet te gën a sell te gën a matale diggante jullit ak morom noo ngi yëkkati suñuy kàddu nag ci ndigalal sëriñ abdourahman mi di kilifa jataay noo ngi sant sun borom subhanahu wa taala bu baax a baax ci fekkeloo jim ñu fekkeloo waat bés bi ñu taxawaat ci seen kanam di leen jottali ay fàttali ak ay soññee ci li ñu suñ borom woo ak ni mu moytuloo te lépp sëriñ bi nee na mu ci jiital boppam bés bii nag solo si li ci ëpp ñi ñu jiitu fi ñu taxaw wax nan ko kon doy na rek nu dolli ci waxi sallallahu taala alayhi wa sallam ji mu ne waa barzaq dañuy ñaan waa àdduna naan leen yéen suñuy doom yéen suñuy jege ñaare yéen suñuy xarit ñoo ngi sàkku ci yéen ngeen sarxeel ñu lu mu tuuti tuuti donte ti bu ñam la wala morso bi yére wala ak ñaan lu mu gàtt gàtt ngeen yéen ñu yool ngir sunu borom doollee sotti yërmandeem sunu kaw ci darajee sarax boobu wala ñaan boobu ndax kat dañoo nekk ci pax mu xóot di kaso bu xat lool te tàng ay waay dégg leen liñ leen di ñaan te defal ñu ko balaa ngeen ñu fekk si xam leen ne nga ne li nekk ci seeni loxo tey yéen waa àdduna ci suñuy loxo la nekkoon ñu sàggane ko don mu réer mu mujj doon musiba ci noonu di njariñ ci ñeneen waxi sallallahu taala alayhi Wasallam ji nag sëriñ tuuba andi na ko ci mañ wax am noorey muy wax ju wér ju ñu mën a ne waa barzaq bég nañ ci bés bii sant nañ ci bés bii ngir li ñu fi def ci ay ñaan li ñu fi joxe ci ay ñam li ñu fi dimbale ci aw nit yu aaju woon dimbal te lépp ngir ñoom kon jàpp nañ ne bés wu ko kaw ci ñoom yalla nanu sun borom nangul lepp ci daraje cheikhuna khadim radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi bokki julit yi bokki talibé yi serigne bi neena bes bi war nañ ci fatali ko ak xalaat waxtu nek ne fi di aduna duñu fi sax rek di ñaanal way daw ni lu di sakku ci ñi fi bayyi li defal ñi ñu jitu kullu nafsin dha'iqatul maut te xamoo kañ ak fan tey jii ñu bokk ci ñu ñu ñaanal lu mat a bàyyi xel la bokk yi dee du jëmm jooy gis mu taxaw sa kanam di la xaar du jëmm ju lay topp ngay gestu di xam fu mu toll du jëmm juy nekk sa wet nga di ko gis muy ànd ak yow wala di jekki wala ak yow déedéet dalay bett këf laak doole kenn mënu ci dara la tatikum wa illa baxtatan wala mafarra anhu mënoo daw ba raw ko foo mën a nekk bu fekk la ko أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنت في بروج مشيدة دي جلني نيت تي فونه جلني نيت تي لونه جلني نيت تي نونه بو سا وقتو اكسي فوم لا فك لوم لا فك نوم لا فك دينا لو يوب امول خارال باما جوغي في امول خارال باما باري تي لي ماي ديف امول خارال ما صوبيني ما مل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يعني دون داو تيرل ساي بروجي ام ساي ميديت يو ري dee fëkk la lépp naax saay gis nañ fi kuy bay ba toolam di waaju ñor dee fëkk ko fekkewu ko gis nañ fi kuy jàng ba war a jot lijaasaam dee fëkk ko fekkewu ko yaa ngi tabax sa kër dee jël la ba nga ko daataan dëkkee yaa ngi labat soxna ba jàpp bés ngir fas sëy bi dee ñëw ak mbetteelam fekkewu ko nga sa njaboot di dem barab ndekete yow mooy seen gisee bu mujj yaa ngi tëdd guddi am loo ni sara def ëllëg wala war a xëy liggéey yeewoo sa bàmmeel yaa ngi door a samp kër am njaboot gu sew tàmbalee kof kofal ak ami mébét ci ñoom dee jël la balaa ñoo dëgër xamoo fu ñu mujj xamoo nu ñuy mujje mbokk yi nit ki war na saa bu xëyee jàpp ne du yendu bu yendoo jàpp ne du fanaan bu tëddee jàpp ne du yeewu lu muy def lu ne jàpp ne dee mën naa ñëw bala mu ko sottal waaye nit ñi dafa mel ne lu leen yàlla gën a won yi mbiram ñuy gën a du mooyu lànk bañ cee teg seen bët lànk bañ cee xalaat bés bu set am néew romb la baa nga dégg ko faatu te kenn mos cee delsi am na ca ñu la gën fopp am na ca ñu la ëpp alal am na ca ñu la ëpp njaboot am na ca ñu la gën a taaru am na ca ñu la gën a siiw am na ca ñu la ëpp mbooloo am na ca ñu la ëpp kattan am na ci ñu la gën a kawe ndombal tànk te yii yépp teewu leen a dee waaye ngay wéy di jàpp ne adduna du jeex danga nga fiy nekk rekk di dund di wéy ba tax na bàyyi woo xel ne dee dina la dikkal bés mel ne asamaan mu wàcc sa kaw adduna woon la gannaaw say bokk ñàkk la ba faaw duñ mën a gëm ne dem nga te dootoo si te la nga nekk duñ ci xam dara dara dara jotoo ci tàggu kenn ndax ñàkkoon a xam kañ la rawatina gaawa yi teqalikoo ruux ji ak jam ji mooy raw xefa xib bi fekk la nag adduna rek yitteel la ngay wut alal di ko mu jaral la lu ne nga ji xiiroo ak ngaayoo di war ak a wax lu du dëgg mu fekk la ngay xëccooy daraja ak nguurub adduna ba mu jaral la faat bakkan mu fekk la nga nekkoon di féewalay bokk di tasu ànd di rambaaj di yàq sa deru morom sa baaraami day tànk yi tàmbalee sedd sab gis tàmbalee lëndëm ngay xëj am jafe-jafe noyyi sa abba aksi nag jeex nga ci aduna mi nga nekkon di liggéeyal japp ne dang fi sax tay ji nak ngay am lu leer de lu am la tay ji nak ngay am lu ya leer ne lu yalla wax deug la mosoo gëm ne ni lay mettee ñu rob la mosoo gëm ne non la bàmmeel xate non la tànge non la wéete say bokk won la gannaaw di delu ci kër ya nga di len deg mu leer la ne ji taxali ko nga ak ñom ba faaw ta fi nga teud sa jëf rek la fi li ba yow xiyam ndax yéen nga ci bayyi xel say bokk ñu ngay waxtaane dee ak ni mu la yóbboo waaye dee lan la war a wax ak yow mi ngi nan sa ruux gi teqalikoo na ak sa jëmm ji xanaa tey jii de mujj nga xam ne dee lu am la ku baax dina ko def ku bon dina ko def dal di ne la dee mooy li nga xam ne kuy dund ku ne di nga ko ñam bés bii nag mooy sa bés biñ la digoon dootoo dellu adduna yow mi mooy yàlla yow miy lekk riba yow miy jëw yow mi teqalay bokk di leen noonale yow miy rambañ waxtu wi la dee di dikkal def na jaarale mboolem loo masa ba nga wax ko fi sa kanam mu mel ne film mu naqari lu lol ba do ko bëgg xol waye aktu waxtu wow metti lu reccu ak tu du la jariñ dara ndax sun borom tejna sa buntu tu dafa mel nak ñu bare bàyyiwuñu xel ci lolu ndax kenn wut li xew ci jamono ji mbon gi jéggi dayo ba kenn mënu ko melal nit ñu saggane seen diine lool umpale sharia ba nga ne lilum top seen bakkan di doxé nam leen neexe umpule yàlla umpule kattanam umpule sañ nit ñi léegi dañuy rawante ci mbon ku yées moroomam nga ne kii sunu jamono ji képp ku lu baax ñor tiit nga ci waaru nga ci jaaxle nga ci ñàkk kilifa gi ci nit ñi matadi gi ci kilifa yi réer gi ci ndaw ñi jigéen ñi sàggan gi ci waajur yi ñàkk sago ci poñutum àdduna tax na kilifa jaay ngorom ñàkk dara darajaam kenn tegatu ko fenn ñàkk sago ci poñutum àdduna tax na taalube bi sànku taalubeem adduna rek yitteel ko mu fàtte àllaaxira ñàkk sago ci poñatum adduna tax na ay bokk dogoo ab ànd tas ay xarit teqalikoo ñàkk sago ci poñatum adduna tax na borom am-am lañ gën a jox cër ci borom xam-xam ñàkk sago ci poñatum adduna tax na noo xalaat rek nit ñaa ngi koy wute alal mbokk yi inna allaha la yaxfi alayhi shay'un fi ardi wala fi sama mënunoo def baa wax lu ump suñ borom subhanahu wa taala wa kulla insanin alzamnahu fi unuqihi alzamnahu tahirahu fi unuqihi lu nuxrija lahu yawma kitaban yalqahu manshura kenn ku ne sunu borom boo leen laaj ñaari malaaka yuy bind say jëf ak say wax du ñu bàyyee dara lu mu tuuti tuuti mu doon ab téere bu lay seede ëllëg yowmal qiyaam dolli ca shahida alayhim samuhum wa absaaruhum wa julooduhum bima kaanu yaamaluun sa dégg sa gis sa deru yaram dañuy seede loo mas a def ëllëg ca bés bés bu àttekaay ba ndax sunu borom moo leen di wax loo qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay'in te yëg nañ li nga doon def lépp ndax nëbboo leen ko woon وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وين جاب من قاعد دفل أم بصبرهم ولا كم دوسيت في يوم القيامة خملني يومئذ سوف ستمت تحدث أخبارها صلى الله تعالى عليه وسلم دفع جنگ آية بي بن بس يومئذ تحدث أخبارها دال دينك أتدرون ما أخبارها ndax xam ngeen suuf si lan lay nettali ëllëg yowmal qiyaam ñu ne ko allahu wa rasuluhu aalamu yàlla ku yonenteem ñoo ko xam sallallahu taala alayhi wa sallam ne leen fa inna axbaaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dahriha taqulu amila kada wa kada bépp jaam muy góor di jigéen suuf si dina wax lu mas a def ci kawam ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ñu ne la nak li lepp ya ko jëful amul dara duñ ci yokk suñu borom ku maandu la du tooñ kenn dina àtte sa diggante ak moom dina la àtte sa diggante ak jàmm xàq yi dox sa diggante ak sa borom mën ngaa tuub tuub du sell suñu borom jéggal la ko waaye xàq yi dox sa diggante ak sa moroom jàmm jàmm bi rek moo la ko mën a jéggal te bu la ko jéggalul fii ci àdduna noo mën a def da ko ko fay ëllëg yowmal qiyaam sallallahu taala alayhi wa sallam dafa wax bés ne rajulaani min ummati jafiya bayna yaday rabbil izza fa qala ahaduhuma xud li madlamati min فقال الله تعالى كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء قال يا رب فليحمل من أوزاري واللقي إيه؟ يوم القيامة بني إيه؟ تحوي تبرب أتكايبا تكن مسلم برم سبحانه وتعالى دعني سوا جنان يوم سما برم سما بكمي نما في أتي ما يرى سن برم نكو waaye moom amatul dara lu rafet lu mu la fayal waa ji ne ko kon jëlal ci sama ñaaw fi yan sallallahu taala wa sallam bi mu waxee rek dafa yëkkat jooy daal di إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم بس بي بس بمقل ندنا تبقى ين مرام أي بكرم غير بقى مج تنبقى المرام مويل سبحانه وتعالى وحنا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه وخص سبحانه وتعالى جينك دينك دين فرنة كما قالوا بس دينك يقري متدي أكتسيا mu ne danga gis koo xam ne guñ ne ko woon kaay ñu dugal sawara sa doom sa jabar say mag say rak ba ci dugal sax sawara ñi nekk ci kaw suuf ñépp te nga mucc mu ne waaw bokki jullit yi bokki taalibe yi nanuy bàyyi xel dee ak mettitam di bàyyi xel bàmmeel ak utiisam di bàyyi xel bés denc ak ya fay xew te yii yépp kenn mënu cee ñàkk jaar nanu góor góorgóorlu ci li tax suñu borom bind nu muy jaamu ko rek te bañ koo bone ak dara wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun nu fonk julli juróom bu daray aduna tax nu di leen sàggane nuy woor weeru koor te di ko dundal nu dëpp ak sunnas mustapha sallallahu alayhi wa sallam nuy génne azaka ci alal ju ko mate añ màkk ci kum jàppandi te lu ñu ci mën a def ci jaamu yi yépp nu def ko ngir jëmmi sun borom mi nu ko sant ndax bari waa na ku ciy def mbir te du ca amee lu dul ab coono sallallahu alayhi wa sallam nee na تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله يوم القيامة وصحف مختمة فيقول الله ألقوا هذا وأقبلوا هذا فتقول الملائكة يا ربي ما رأينا منه إلا خيرا فيقول الله إن عمله كان لغير وجهه ولا أقبل يوم من العمل إلا ما أريد به وجهه ويوم القيامة جفو دوم آدم يب دفن لين تكتك من سن سبحانه وتعالى سن دي وخ ملائكة نان لين سن لين جف جي نمو لين جف جي ملائكة ينكو يو سن سبحانه وتعالى جسنو تي جفي جامبي لدل رفت لدل باخ برم سبحانه وتعالى نلين واي تخمكو وان دي جف دادون جستال te tey jii du ma nangu jenn jëf ju dul ci jaam bi jëf te sama jëm ji rek tax kon bu nuy jëf ngir puuk réew wala bëgg ñu teg ñu fenn wala ñu yéem ñu wala dinu waxtaane lépp loo xam ne sunu borom digal nanu ko nanu ko xam lu bu baax te jafe ko lépp lum nu tere nu xam lu ko bu baax te moytu ko ndax ëllëg kenn du fa gàddul kenn ay bàkkaaram te lu baax du fa doy kon lu waay jëf rek boppam man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha noo ngi dénk waajur yi nu gën a taxaw ci saytu njaboot bi am na yu xew léegi te càggante waajur yi rek a ko waral bàyyi sa doom muy seetaan ci télé bi lu ko neex di ay émission ak ay film wala série télévisée yuy def jeexital ci bopp xale yi di leen mébétloo di soppi seeni xalaat ba ñu jàpp ne seen diine ak seen aada da leen di tardeel di roy ñi ñuy gis foog ne ñoo nekk ci dëgg te ñuy roy bokku ñoom ñoom diine bokku ñoom ñoom aada bàyyi sa doom mu yor téléphone portable di wuyoo ko woote di dugg ci internet bi di am lanteeg ñoo xamul ñu yàq boppam di ko dugal ci doxalin yu ñaaw ak di soppi jikkoom bàyyi sa doom muy jaxasoo ku ne di dem fu ne ci waxtu wu ne li jënti woo ki muy àndal ku mu fi muy dem fu mu ki muy seeti ku mu li mu yor fu mu ko jële bàyyi sa doom muy sol lu ko neex di la romb di génn di waxe na ko neexe di doxe na ko neexe woowoo ko yedd ko xamal ko doomi jullit nu mu war a melowoo nu mu war a jikko woo am na ci waajur yi ñoo xam ne seen diine sax xamuñu ko bu baax rawatina jigéen ñi waxtu julli day jot seen doom jóg di julli ji ñu toog ñoom mel ne ku xamul ne da leen a war ñoom tamit wala seen doom di muuru ñu naan ko bu ñu jommal ngay malaj malaj ji nii gone gu ndaw demagoo fenn nga mel ne kuy teññi xam leen ne ñàkk a sonn ci sa doom tege ci sharia mën naa waral mbugal mu tar yowmal qiyam ndax dina ko layoog yow te dina la yey bari na lu nekk ci xale yi léegi loo xam ne ci seen waajur dong lañ ko gisee waajur wu tegewul ci li ko diineem digal doomam di ko gis nan lay mën a tege doomam ci yoon wu jub yéen wul waajur yi nanu góorgóorlu ci yar njaboot gi ci lislaam bu baax xar ci seen tànku tubay mu jaral leen lu ne nag nañu xam ne ni leen dundal leen ware ak woddu leen nu ko raw fopp la leen ware ci saytu seeni seenub yar ma fàttali rek ne segam doom dina layoog baayam ci turu neexul bu mu ko tuddee dina feraw kon ci melokaan wu bon ak jikko ju ñaaw jum seetaan ba mu jël ko bokki jullit yi bokki taalibe yi adduna poñetum àdduna ak daraje àdduna jërul yenn yi lu la àdduna dëngmal dëngmal ci biir suuf ngay mujj àdduna wan la ginnaaw loo barile barile ci biir suuf ngay mujj dara du la topp loo kawe kawe dara ji ci àdduna ci biir suuf ngay mujj ñépp di dox sa kaw kon nanu boole suñu bopp te bàyyi xeebante bi bennoo doon wenn say bañ a teqalikoo bañ a xajal seytaane suñu diggante nu bëggante soppante wóolante te yàlla rek a tax nu yéenante jàmm tey bañ a añaanante lu waaye am rek yàlla la soob mu may ko ko nanu ko ko yéene yàlla nag la lay mooy mu neex la ta nga ànd ja nanuy dox jàmm suñu diggante te di ko wax di moytu rambaaj ak tasu bokk képp ku leen di wax lu dul luy defar bu leen ko déglu bu leen ko topp ndax kat ku lay jàqal ak say bokk boo demee këram ma ngay fexe nuñ ñu benno bokk yi aduna gàtt na rawati na dundu doomu aadama bi rawati fi fi muy mane ak fi muy tëlee kon warunoo tal bañante ak noono warunoo tal xiiroo ak xàjjalikoo yéefar yi sax ñi ngi booloo ngir dooleel seen bopp te nun jullit moo ci gën a yey ndax suñu borom moo nu ko sant wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu rawati nañu bokk wenn wasila bokk ñu amul ku dul moom bokk ki nekk ci sunu xol yi te yemale wuñ ko ak dara bokk ki ñu yaakaar yàlla jaarale ci moom sunu mucc tey ak ëllëg muy cheikhuna alxadim radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi te moom it loolu la bëgg ci nun te mi ngi koy ñaan ci matlabu shifa waj'al qulubana ala tawadudi بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين li woné na ne ngir ñu nekk ay jullit yu gëm yàlla ragal ko tay sellal faaw ñu bëggante baña a xiro ko ngaayo baña añaanante baña xulo ko mero ko tongo kon bokk yi bu nu xol li nu wuute nanu xol li nu bokk ndax mo ñuy boole ta kenn ku ne buntam ci Serigne Touba mu jàpp ko fonk ko di ci xol Serigne Touba te bañ a xeebal kenn bunta ba ndax kat yàlla dina suturaal nit ba tax mu nëbbi wa ayibam waaye dina suturaal nit tamit ba tax mu nëbb darajay kaneen xaw ma xam ngeen li ma waxam déet dama ne yàlla dina nëbb ayib bi jaam bi ngir suturaal ko waaye xam leen tamit ne yàlla dina nëbb darajay jaam ngir ñu mën gis darajay kaneen kon nanu wormal ñëpp ngir yalla bu ñu jum tanu gur gur góor góorlu cig taalu bi ak taalu bi nag mooy sàmmonteeg yi war sa diggante ak sa borom تيغي ني وارسا ديغنتي اك مصطفى صلى الله عليه وسلم تيغي ني وارسا ديغنتي اك سونو وسيلة القديم رضي الله عنه تيغي ني وارسا ديغنتي اك سمرو ممتاز اب طالب نك دا فا وار دي جيفي ديغال سيرين توبا دي مويتو اي تريم دي داب باني خاب دي داو ليب لو كو نخاري سيرين توبا نك دران جنول القران اك سونو مصطفى صلى الله عليه وسلم تي لا جيخال دوندم جيب بند اي تيري غير كين باغا امبولي بروومام اك دينم bind di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci moom ngir nu jariñu ci tagg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak di julli ci moom kon ab taalibe warta sàggane diineem ab taalibe warta doy dal sharia koo bëgg nag te bëgg nga di dëgg ci yow faaw nga bëgg bëggam di daw mbañam sëriñ tuba li neex yàlla rek la bëgg moom la nu digal li naqar yàlla rek la bañ moom la nu tere kon bu leen xool baa déglu wala wuyu képp ku leen di wan wala wax wala woo ci lu dëppoo wut ak bëgg sun borom subhanahu wa taala bokk yi sëriñ bi nee na mi ngi dénk boppam tey dénk ñépp ku am sëriñ Touba baa nga bokk ci moom ñekkoo dara bay jaay sa ngor ci leneen bu loolu amoon njariñ yàlla teg ko ci loxoom ku ànd ak sëriñ Touba jërul ngay ci dara mën na sëkk kiiraay ku topp ci sëriñ Touba jërul ngay gestu wëccoo lu mel ne moom sa gannaaw ku womatu ci sëriñ Touba jërul ngay ragal fakk fi mu lay jaarale fépp a leer kon nanu ko topp di wéy ci ay ndigalam di moytu ay tereem wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu